wure wo dem na këng waxe mag dem den taali baag war mbaam lu waay doon jaay teele day mu lamb diggante Pokola Baldé ndeysaan ak Liss Ndiago arbitre yaa ngi wax ak ñoom li lamb bañ Malick Ngom la ma koy ay juge am ndax Pokola pare nga Liss Ndiago ndeysaan xale bi mooy doomi Ass baayam mun naa wax mu nga dëkkoon Kaba arbitre bi la na génn seen diggante Pokola ak Ass Mbaye ndeysaan Pokola Baldé ak Liss Ndiago Pokola ngay diroo ko uti ko Liss sànni na na waaye Liss mayul ma xale bi ngay sekkatal na ko yor na ko waa du ko doon daal allahu akbar allahu akbar allahu akbar Pokola doon na Liss Ndiago mu daanu ndax avant muy génn la wula bi mu génnee la ndax avant muy génn wula bi mu génnee la ndax avant muy génn wula bi mu génnee la nañu xaar arbitre yi nañu xaar arbitre yi nañu xaar arbitre yi nañu xaar arbitre yi nañu xaar arbitre yi ñoom ñaara ngay langoo di génn di ñibbi Pokola da koo mu daanu ndax bi mu koy dóor génn na wala génnul lan moo xew lan moo xew lan moo xew oh! allahu akbar allahu akbar laa mu ja na la arbitre bi wax lan la arbitre bi wax lan la arbitre bi wax lan la arbitre bi wax ndax bi mu koy door daa génn wala génnul loolu moo mat a laaj dëgg la waaye waaye doomu as mbaay ji nañ ko bàyyi xel bàyyi mbër la woon maa la wax loolu champion la boo xam ni mi ngi jamonante woon ak ku ñuy wax Badle Ziki ak ku ñuy wax Maxime Mbargane jamonte ak Mbaye Fall ak champion boobu ñuy wax Ngéylu ñooñu la bokkaloon génération. Baye mbër la mbër la. mbër la nijaayam mbër la yaayam sax mbër la yaayam sax wax loolu ndeysaan mi ngi noonu moo bëgg laa bale ma xel nee na ko loo xam ne dafa diis sëtu mbër la diis jaaga waru nangu ak gëstu ma ne sëtu mbër laa bale bëgg laa warul ak diis jaaga warul wax loolu loo xam ne dafa diis heure bu ko jëlee wàcc man dama ne combat man mu ci combat bi bu ma yoroon Liss Ndiago du bëre ak Pokola Baldé waaye bu ni coow lu mën di xew dañuy day am coono bare action bi ci biir la commencé. waaw bi mu koy door booba benn tànk bee génn loolu man wax naa ko. maa la benn tànk bi rek moo génn. xoolal mi ngi ne. li nga ko maa la ko wax benn tànk bi rek a génn. ma ni suite la suite la jël la. Ah, xëy na bu at bu fekkee arbitre soufflé wul. waaw mais bu soufflé demul yoon. waaw arbitre action bi bu démarré ci biir. da ngay bàyyi ñu génn. waroo soufflé ñaari xale yaa waaye Pokola dem na Ardo Pokola dem na Ardo ma nga ca loxoy ya dafa mel ni benn croisé rek ma ni ma nga ma ngay wax ak ya Pokola ak Ardo ma ngay wax ak supporter ya ah, waaw waaw waaw waaw Pokola ak Ardo ma ngay wax ak supporter ya wallaay ndeysaan xale bi courage la dafa am courage borom jom la wala mbër la man maa la wax lii wallaay ndeysaan moo gën a moo ëpp résultat ci ji dañ ko bàyyi xel gis naa ñu fekk ñu dóor ko dóor yoo xam ne waaw bari na mbër yoo xam ne la ko dóoroon ñu wori waaw fi mu mujj diggante ba gàkku dóor waaw jom moo ko génn ci làmb gis nga mais arbitre dafa seet suuf leen ma jaaxal. ah xaw ma daal suuf leen waaye bu fekkee suuf leen dafa juum. maa la wax loolu. ndeysaan. Pokola dellusi na. nee na ndax dañuy bërewaat. dañuy bërewaat. loolu la arbitre bi wax. maa delloo buum ca boy boy ba. ndeysaan Pokola Balde. Pokola Balde. ndeysaan doomi as mbaay ji ndeysaan a Kumba Balde maa la wax loolu arbitre wax na dañuy sufle waat Liss Ndiago lañ jàkkaar lool boko la moo won ginnaaw e waay bis bi rëy na combat spécial bi rëy na avertissement la ko jóg avertissement la ko jël coup irrégulier nee na bi mu koy dóor daa sifflé wala mu génn loolu la arbitre bi wax waaye Pokola ngay tiree ko ko mbaa du ko ko defaat ma ne mbaa du ko defaat touché waat na ko moom moom Liss Ndiago moytul ma jël droit bi daw di ko jël. bi di am eh waay combat ñaar seen combat nii la mën a mel ña ngay ko gaañ mbaa ko gaañ mbaa ko gaañ dana ko rey dana ko rey dana ko rey bu danay reyante allahu akbar allahu akbar ñaari xale seen laamu mënut a yomb seen laamu mënut a yomb départ ba ba nga ni nii la maa la wax loolu dañuy jihaat dañuy jihaat ñoom ñaar dañuy jihaat ñoom ñaar oh, ay laamu ji neex na lii rek doyoon na lii rek na grand combat te waay Pokola ma ngay diree ko wuti ko Liss na Liss Ndiago génn na non ma ni mënatu ko ma ni mënatu ko mënatu ko mënatu ko kuy bu jël par kawoo lay mujj jeexewaat. wallaay moom baaxul ci moom. waroon muy bëre làng. baaxul moom. ndeysaan arbitre bi na. arbitre bi la war na kenn seen diggante. maam mbetteel am. maam mbetteel du ci am. damay bañ bokk laa yaakaar ni xale bi da koo ragal. bañ. da koy iri da koy ko. ma tooñ. ma ngi koy tooñ. la ma koy tooñ mayul ma gisoo mayul ma loolu baaxul d'accord ma ji gisoo door na ko góos door na gisoo ma koy dem ndeysaan moom Pokola Pokola Pokola Pokola koy toppat ñaari xale yi seen làmb mënut a yomb moom Pokola Baldé ndeysaan ndeysaan Pokola ma koy accéléré ma koy accéléré moom Pokola Baldé. yaa ko jàppante bi ngay dem yow oh. ay ah, lamb ji rëy na ah ma ne ñu koy xeex kor na ko ma door mbaa du gaañ jàppante eh mayul ma ma xale bi ragalu la ma xale bi ragalu la Liss Ndiago fi mu ko jàpp baax na Pokola Liss da koy door Pokola mayul ma xale Liss Ndiago fayu na. daa jël coup Liss Ndiago fayu na. Liss Ndiago fayu na. Liss Ndiago fayu na. voilà Balla daa jël coup. daa jël coup. combat bi neex na waay. moo tax ma ne mbetteel. waaw dañu moytu mbetteel. voilà dem na Ardo dañu moytu mbetteel. dellu na Ardo. voilà Balla dem na Ardo. dellu na Ardo ndeysaan. moo génne boppam moom Pokola Baldé loolu la Liss Ndiago defoon sànq Pokola def na ko tey daal Liss Ndiago gaynde la Liss Ndiago démérité wul ndeysaan arbitre arbitre baa ngi leen di waxaat ñoom ñaar li làmb bëgg ak mel ni bu Pokola jëlee avertissement dañ koy seddoo dafa koy seddoo Ndiago ngay commencé am confiance ba ngay bokk ci làmb ji Liss Ndiago ngay commencé am confiance mi ngi bokk ci làmb ji ndeysaan moom Liss Ndiago arbitre baa ngi wax ak ma ngay consulté ay jugeem sifflé waat na sifflé waat na lan moo xew ay jugeem waaw avertissement ba loolu la fàtte woon joxe noonu la sortie délibérée dañ ko tolloole ku ci ne am na ñaar arbitre sifflé waat na génn seen diggante Pokola Baldé teel Ama Baldé teel xale bi ngay bëreel daanaan la Liss na dafa bëgg a bëri daa bëgg a bàyyi xeex bi dem bëri ji moom Liss Ndiago Pokola Baldé Pokola Baldé koy liir waaye Pokola na moyu na moyu jël ko daw na jëli ko yooru na eh arbitre non non arbitre ndeysaan la amoon ci sit bu njëkk ba moom la sifflé waat moom Malick Ngom la amoon ci bu njëkk ba moom la sifflé waat moom Malick Ngom en bu dee am ay dina bari kenn ku ñu daan sa morom ca ginnaaw kenn ku ne daan na sa morom ci ginnaaw am na ñett lim am jëli ko mu remplacé ko daw na jëli ko mu remplacé ko daw na jëli ko mu remplacé ko arbitre bi la war na daw na jëli ko mi-temps mi-temps mi-temps mi-temps jeer mu mel ni am nañu 10 minutes boo xam ne kenn dootu ko fàtte ci ñoom ñaar 10 minutes am sàpp ñoom ñaar li ma ci jaaxal mooy ñaari jël am na ci ci benn ngoon ci benn takusaan kenn ku ci daan na sa morom wallaay loolu jaaxal na ma fii noonu mu mel kenn ku ci sa tey ji même boo daanoo sa sëriñ naku am nañ way ñoom ñaar maa la wax loolu seeni sëriñ am nañu ndam ndeysaan ndax ku wax mun la jël ba nga daanoon moom laa andi woon man maa la wax loolu wallaay dëgg la bilaay combat bi day layal sëriñ waaw sëriñ yëpp am nañ lay ndeysaan am nañ lay maa la wax loolu dible waa na gën seen diggante bare nañu fukki minute ba mi-temps dégg njaago appel na ko waaye ki nga xam ne taxaw na di ko xaar Pokola ngay bëgg a téye léegi waxoon naa la nga téye ci mbiri xale bi Pokola Baldé waxoon naa la nga téye ci mbiri xale bi ndeysaan jaaga woor bi ndeysaan jaaga woor bi yow it xoolal ma xale bi ngay bëreel bi ngay bëreel baayam mbër la maamam mbër la wala ay maamam mbër la ñu ndeysaan daw na dugg ca garde ba Pokola koy accéléré na mu doon def ndax day wàcc jël ko ca suuf day wàcc la lan lay dem Pokola Baldé dugal na dugal na Liss Ndiago dugal na ko ji xeex nañu xeex na jël ko wàcc na da ngay xeex rëpp na Pokola teyel xale bi ndeysaan xanaa Baldé dafa bëgg a jeexal combat bi Liss Ndiago xeex bi la ko gënal ndeysaan Pokola tey mbër yi nga doon dajal ki nga dajal bokkul ak ñoom ndeysaan ki ngay bëreel bopp lay bëreel comme duggee ci làmb yàggul waaye commencé naa xam ne expérience làmb moom Liss Ndiago ndeysaan tey Mbaye Babacar la ñu àndal bool bool bu mag bi borom Leewtoo TV ndeysaan doomu ndey Etienne borom Diourbel tey moom a wekk micro tey moom laa àndal mooy sama xarit maa wax loolu barke yorente bi ndax tuqali cigarette yi sax dañuy toxalante tey Mbaye Babacar ma jox micro bi ñoo ngi fii ci arène nationale ci journée Baye Ndiaye Ewen di combat bu mag dox ci di ah, daw na jël ko jël na tànk ba eh, allahu akbar non Pakala ambar la nooju na ko mu génn laa ilaha illallah laa ilaha illallah noori mbër la non combat bi bëre feeñ na fi xeex xeeñ na ndeysaan eh daw na eh laa ilaha illallah liis ñaago moyul liif njaago moyul i waay combat bu mel ni gëj na fee am bu mel ni gëj na fee am non ji buñ sax jaadu na walaay buñ ma su nii loon jaadu sax jaadu na ay waay Thier. tey gis naa bëre gis naa xeex. wallaay ndeysaan. combat bi nu fay di trente quarante millions cinquante millions bi yoo ko dàq. bii moo ko dàq. bilaay nag moo leen commencé dikkal ñoom ñaar. waaye ko seetaan. waaw xam ni bokkul ak Bombardier ak Franc. déedéet nañu nu koy def. nañ ko jox xale yi. nañ ko jox ñoo ko mérito. ñoo ko wax loolu. wallaay dëgg la dëgg la ndeysaan diggante Pokola Baldé ak Liss Ndiago lu ñu leen fay jar na ko. li ñu fay Bombardier ak Franc. waaw li ñu fay nii boo ko war a ëpp. ndax li ñuy def ñooñu defuñu ko. ñëpp a kontaan. mbokk jur xoolal ma booy ñaa nee di pikit te jóg na ndeysaan maa la wax loolu combat bi neex na yàgg na. waaye Joona a ngi bëgg a feeñ Joona mi ngi bëgg a feeñ Joona mi ngi bëgg a feeñ ku bëgg Joona a ngi bëgg a feeñ ku ëpp entraînement jàppante baal eh non kor na ma ne la loolu baaxul Liss Ndiago mayul ma ku yooyu baaxul Liss Ndiago mayul ma ku yooyu baaxul Aline Diago ngay accéléré Pokola koy aspiré daje nañu Allahu akbar la ilaha illallah ay eh waay ji lamb neex na ay eh waay ji lamb neex na ay eh waay ji lamb neex na ay waay ji na Pokola dellu na ardo Pokola na ardo xale mën nañ ko jàngal xeex dañ ko jàngal xeex. na defar garde bi na defar garde bi. na defar garde bi na defar naa doo mën naa xeex waaye garde bi baaxul. moom Pokola Baldé moom Pokola Baldé. wallaay day garde bi baaxul. am na fit mën naa bëree am na jom waaye garde bi baaxul. te am na ku yoo xam ne boo ko jëlee ci jàppale leen xale bi ngeen dolli xeex bi dolli defar garde bi jàppale leen xale bi ngeen dolli xeex bi ngeen defar garde bi mbër la mbër la mbër la mbër la moom Pokola Baldé waaye kenn du liif njaago kenn du liif njaago kenn du njaago or bi maa la wax loolu. am na 3 mètres waaye comme jaay na liif njaago moo am 3. Pokola am ñaar loolu am na. mi ngi noonu Liss Ndiago am na trois avertissement ki nga xam mooy Pokola am na ñaar defe naa ne Pokola day bëre waale loolu avertissement yi. am avantage ci avertissement. daa war moom bu doon mën a moo tax Liss mooy bëre ji léegi na ko aspiré xaar ko. na ko aspiré kay makandee loolu lañ koy wax temps bi li ci des bariwul diggante ak Pokola Baldé ndeysaan cinq minutes bariwul ma ngay xeex moom Liss waaye picc nga ca kaw waaye xel maa nga ci maa la wax day ñëw walaay li may du deñ waaye mais bi ñëw tamit waaye Pokola liir na bi jóge ca kaw waaye xel maa nga jël suuf arbi bi nee na ko nga taxaw bëre jeex na Pokola am na ndam Pokola am na ndam Pokola am na ndam bu jeexee Pokola am na ndam bu jeexee Pokola mooy am ndam bu jeexee Pokola mooy am ndam bu jeexee Pokola mooy am ndam bu jeexee Pokola mooy am ndam jeex na jeex na moo am na wax na dëgg moo am ñaari avertissement wax na dëgg waaye làmb ji neex na oh, ay ñaari xale yi seen combat bi na ñaari xale yi seen combat bi na ay gar yo lañ luñ leen fay jar na ko luñ leen fay jar na ko ndax dina combat bi dina li mel ndax dina combat bi dina li mel ndax grand combat bi dina ni mel Thier fooguma ko ndax dina ko mel ndax dina ni mel ndax dina ni mel ndax dina ni mel